jàpp naa ni am na loo xamante ni il faut que ñu acté ko pour nit ñi mën a évoluer moom mooy président mënul dem au de la 2 avril. ah yow loolu mooy sa man jàpp naa ni. loolu mooy sa position xam nga xam nga xam nga mu na su demee au-delà du 2 avril xam nga lan lay indi li ñu wax ñun coup d'état institutionnel bi dañ koy acté dafay am. donc day am pour la première fois ci Sénégal un président de la République bu fi nekk te jaarul ci élection oui mais avec la couverture euh, de de de l'article 31 modifié euh, par l'Assemblée nationale euh, il pas il ne sera pas mënul am couverture boobu suñu constitution dañoo ne article 27 euh, 26 le président de la république est élu au suffrage universel direct suffrage universel mooy dañuy dem élection sénégalais yi voté assemblée nationale suffrage universel et indirect la ay député mënuñu permettre amul fenn benn disposition à un président parce que loolu suñ ko suñ ko defee assemblée nationale mun na voté waat deux ans mën na voté waat beneen trois ans mu nekk mandat donc il faudrait que ñu def très attention ci loolu euh, am na lu président tenté gis na li ci xew réew mi ngi ci crise réew mi ngi ci guuta mais je pense que mën nañu rattraper su fekkee nag acteurs yëpp su fekkee acteurs yëpp ànd nañu ak seen sago te continuer nañu di xool intérêt askan wi intérêt réew mi man intérêt askan wi ma répété ko jaaratul fii ci politique benn bakkan di fi di fi rot man dama koy wax jàkkaarloog Sénégalais homme politique yi fi nekk yi ma xam waruñu leen jaral kenn di fi dee jaru ko ce sacrifice suprême jaruñu ko parce que yu bëri ci rëccu rek lay mujj maintenant le président de la république mais, mais, qui a ses responsables au-delà bu le deux jotee mhm. président lan la war a def d'après yow mu démissionné avant le deux mu démissionné avant le deux mu démissionné avant le deux comme ça président assemblée nationale assurer la vacance assurer la vacance et à charge pour lui d'organiser les élections dans un délai de trois mois d'organiser les élections mais est-ce que loolu gënul nekk situation de, de non non en tout cas en tout cas ñun ñun je pense que nit ñi mën nañu accompagner loolu Euh, yaakaar naa ni solution bi sax conseil constitutionnel mën na ko joxe. parce que ah. conseil su invalider. la euh, décision euh, la décision. je eh. pense que danañu danañu danañu euh, am na benn réalité buy am. élection bi moom pour ñu mën ko def ci date bi ñu ko waxoon c'est matériellement impossible. matériellement impossible maintenant conseil constitutionnel mën na su euh, euh, déclarer inconstitutionnel la loi la loi ñu xool après mais nan la ñuy def mën nañu concerté wu en tout cas risque bu gën a mag. concertation bi dialogue la donc di dem ci dialogue bi. non consertation bi su fekkee ni ñun ñun ñun su fekkee ni concertation bi dialogue bi def nañ ko. fekk ni du président de la république bi bi fi nekk parce que moom bi mu fiy nekk président lay légitime sax ñun mosuñu bokk ci ci dialogue hmm. en tout cas waxtaane woon ko suñu parti mais jàpp naa ni euh, un président qui sera illégitime dans à partir du 2 avril mais mais mais mais mais xam nga loolu aussi xam nga loolu aussi c'est c'est c'est un vocable euh, politique la réalité mooy l'Assemblée nationale ma ma ma ma dugal la ci l'article 3 de la con constitution du Sénégal dafa la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum par ses par le biais de ses représentants ce sont les députés de l'Assemblée nationale mën nañu juger la méthode comme euh, immorale euh, illégitime mais ce sont des représentants avec un quorum Euh, bien déterminés ñoom ñoo voté une prorogation ponctuelle et conjoncturelle du mandat et ils disent que le président de la République actuelle il reste en poste jusqu'à l'élection jusqu'à la passation de service avec son avec son successeur et si en plus euh, le Conseil constitutionnel euh, comme ni ñu ko xamee traditionnellement mu déclaré wu incompétent euh, est-ce que mën nañu ko bëgg a mën a au lieu est-ce que mun nañu bëgg a jàpp ci ne euh, il est illégitime on ne peut pas reconnaître. gis nga euh, brèche boobu suñ ko tijjee dama koy répéter ñu ne assemblée nationale euh, au regard de l'article fois mën na euh, prolonger euh, mandat président de la république. Uh -huh. rien ne s'oppose à ce ñu defaat ko deux ans. ñu defaat ah. ko trois ans ñu defaat ko. mais mais loolu yëpp est-ce que est warul leen dem dialogue c'est-à-dire dafay créer un précédent dangereux ah, ñoom ak seen majorité mécanique ñoom ak seen euh, nouvelle alliance avec parti démocratique sénégalais euh, mën nañu encore proroger waat mais est-ce que du yéen est-ce que l'intelligence politique du du ngeen dem ci dialogue bi tëjaat loolu yëpp euh, réfléchir sur tous ces ces ces obstacles yi nga xam ne mën na créer des précédents dangereux est-ce que du foofu lañ ko war a waxtaanee mais condition dialogue bi condition condition man jàpp naa ni condition wu participation opposition bi dafa war a nekk man man li ma xalaat sama proposition dañoo war a intransigeant ci lii nga xamante ni su jàllee brèche lay tijji lu musul am la président bu ñu buy fii nekk au-delà du terme. du terme parce que dañoo ne le président de la République est élu pour cinq ans prêté woon na serment 2 avril 2019 19 2 avril 2024 la jeexal waru ci def benn heure bu bu euh, de plus loolu suñuy ñuy d'accord ci loolu Sénégal man jàpp naa ni. jafe-jafe yëpp ci ci waxtaan lay. voilà mais dafay bokkatu ci. loolu préalable la war a nekk te benn condition la war a nekk. pour ñu dialoguer. pour nit ñi mën a participer ci dialogue parce que loolu su fekkee ni def nañ ko rek c'est la boîte au Pandore la ñuy tijji kenn xamatul fu mu jëm parce que en fait il faut être intransigeant ci lii laal ay constitution lii laal suñuy institution yooyu